wala yéena ay bëggan ca la yéen a bëgg jamono ay jàmbaar lu yàlla def dëgg sës saay-saay mënu dara yéen a ma wala man ay bëgg dëgg yéena ma bëgg wala man ay werante la yéena ma bëgg wala man ay bëggante la mwaji kama giganyera ucha dumletefe lopinja lopi jaago lopi si moom xaritam sore Rokosa, Koston, Kochapek ni wọ́n yìí. jar di safana noonu mool euh, super euh, jamono euh, mujjee joué léegi foofu tam foog ñu taxaw ci tuuti. Mhm. laata ñuy dellusi ci coon. nappkat yi tamit am na ñuy jàmbat. Mhm. géej gi ñu jàpp ni awul yoon. Mhm. ay bateau yu jóge fa leen ñeeñu seen gis-gis moo leen tege am liggéey. loolu itam xam naa lu ñu war a bàyyi xel. ci réew mi itam. buñ bëggee saafara tawati. waaw xam nga affaire yi dafa nekk. dafa dafa dafa bari ay ay jëmtukaay. dafa mhm. bari fu nit mën a yaakaar ci pour dund itam mais def loo xam ne la dina amal askan bi njariñ loolu dafam sol xam nga fi nekk nii information ñi ngi ñi ngi jot ci ñuy réer ci ñi dem sa géej ga réer. du ñu mhm. dellu si bari na. Mhm. waaw ñiy suux ñiy suux bari na loolu tax. te géej moom euh, du fekk kenn waaye boo ko fekkee mën na am itam doo dellu si te mool am na solo lool hmm. ndax lii indi so mool boo nee jën ne mool te jën ñun si ñun Sénégal jën dafa am solo lool si ñun ndax la ñu gën a bëgg ñun si nga xam ni moom Sénégal boo ñëwee si cëpp boo nee Sénégal ñu ne ceebu jën hmm. je crois que c'est extrêmement important dafa bokk si suñu culture hmm. mool moo tax loolu ñu ñu koy ñu koy ñu koy euh, jëfandikoo. Mm-hmm. mooy sunu plan national. nga xam ne loolu itam am na solo donc lépp loo xam ne lii dafa war a tax ñi koy def ñu teg leen ci condition yoo xam ne dina la mën a permettre ñu liggéey normal loolu je crois que mm-hmm. loolu moom moo war. Mm-hmm. pour pour jàppale. jàppale leen noo seulement loolu seen liggéey la. waaye loolu itam du ñëpp ko mën. man tey boo ma joxee gaal ne ma demal wuti. <laughs> jën benn yaboy sax doo doo doo ko am ndax ndax mënuma loolu jànguma ko ñi ko jàng nag mën ko uh-huh. di si di si liggéey te mu metti lool parce que dañuy dem fanaan si si si si si géej gi mm. xam nga li ma naan moo tax léeg mu mer léeg-léeg léeg-léeg mu sàng balaax amul amul bànqaas amul amul amoo amoo amul eh, amoo foo jafan mm-hmm. ñooñu nag buñ leen mënee dimbali teg leen si yoon jox leen condition moyen matériel boo xam ne léeg mën a permettre au moins ñu mën a liggéey ci condition yu baax loolu dina la mën a tax mais kooku intérêt ñëpp la intérêt Sénégal parce que dina leen mën a permettre ñu mën a li def def seen liggéey indi mu am njëriñ mu am njëriñ lool donc moom moo tax ma ma créer morceau bi moo wooy leen rendre leen hommage mm-hmm. parce que je crois que am na solo lool mm-hmm. am na solo lool wax dëgg yàlla. Mhm. te itam si ay jafe-jafe la ñuy nekk yu yu doy waar. léeg-léeg nga gis ne dem nañu benn dëkk ñu. téy leen jàpp mhm. leen téy leen ci xam nga. du indi leen ay tolof tolof yu yu méttee méttee méttee xam nga léeg ñu dem réer dootu leen gis. Mhm. xam nga léeg nga gis leen ñoom aussi ñu ne ñoom it vraiment léeg ñu dem du mu métti métti métti métti. parce que bu ñu demul. ah wax dëgg yàlla dana xaw a doy waar nag ah dëgg-dëgg nag dana doy waar lool wax dëgg hmm. yàlla donc moo tax mooy daal il faut ñu bàyyi si xel bàyyi si xel jàppale leen euh, dimbali leen parce que li ñuy def am na solo lool lool lool lool lool te am réew nag li ko yor mooy euh, ku ci nekk dafa foo foo war a jàpp hmm. xam nga ñëpp ñu jàppandoo benn benn benn benn yëf hmm. nous sommes interdépendants pour que réew mi mën a avancé il faut que fa nga jàpp fa nga ne ku nekk lu ko jàpp rek am na njëriñ njëriñ loolu nag bu ñu ko lajalee mu nekk njëriñu réew mi je crois que dinañu mën a avancer loo parce que su compté am nañu am na objectif ay projet yoo xam ne maa ngi léegi ñuy wax yu bëree bare bare mhm. dañu war a dem kanam mhm. waruñu na rek mhm. si pauvreté déedéet mën nañu dem pourquoi parce que am na ay nit yoo xam ne seen xam-xam màcc na si li si li si liy jëmale yëf yi kanam je crois que loolu itam il faut ñu bàyyi si xel ñu ñu mhm. donc euh, képp koo xam ne ki yaa ngi liggéey si loo xam ne amal na njëriñ réew mi dañ la war a jàppale war la mën a comprendre pour si loo xam ne lii daal mesure bi possible nag wax dëgg mhm. yàlla parce que bu laa jublu kenn nga def loo mënul parce que def loo mënul moom kenn sant ko kenn waaye na nga def si kémtu lay kattan mhm. ba nit si li muy yëngu vraiment moo gis si njëriñ voilà mu mel ni nag euh, Euh, bàyyee na fi ñuy ñaan yàlla suuf oyof ci kawam waaye dañoo bokk génération amoon ay relation tamit euh, normal na tey jii bu toogee fii mu war ñoo mën a wax euh, digganteem ak Thione sekk ci tënk bu ko defee nag ñu mun koo delloo njukkal ndax delloo njukkal du du doy rek mm-hmm. mais un grand artiste est parti mm-hmm. et que wéetal na leen yéen ñi nga xam ne yéen la bokkal génération mm-hmm. moo tax ma ne woon ñu bàyyi la nga wax ci loolu dëgg la dëgg la ndax boo fekkente ne da nga ak nit euh, teraanga ak euh, parce que li nga xam ne lii moom moo am ñoom si suñu diggante ñu fi tudd ñëpp mm-hmm. li ko li ko ëmb mooy respect d'abord mm-hmm. ku nekk da nga sa morom mm-hmm. bu ñu bokkee dara bokk nañu lu bëree bëri bëri ay événement yu bëree bëri bëri bokk nañ ko bokk plateau bokk scène Euh, liggéey si ay actions sur le plan social. Mhm. yëpp ñu def ko te pourtant posé wul benn problème. Mhm. Euh, bi ma Youssou woowee ne ma dañu bëggoon ñu def euh, les cœurs solidaires pour mooy mbënd mu metti moom ma fa amoon. Mhm. mu indi sunu sunu participation. man maa jël sama téléphone woo ñëpp. mais koo si woo danaan la boo raccroché maa maa nga fa boo mu sax ma ñëw. donc on mu nekk exemple bu mag a mag a mag. Mhm. te photo yi ñu ngi koy wane image yaa ngi fi. Mhm. Euh, mu nekk ñu nekk ay ay ñoo xam ne dañu seq coloré boo xewlee koo woo mu ñëw euh, man li ma mën a jàpp si coon mooy ñoo bokk même année bu ñu bu ñu juddoo. Mhm. moo ma magee ay weer mais. séq naa ak moom loo xam ne wax dëgg yàlla euh, am na ay temps sax ma nekk ma fi woon may bi ma feebaree nit ñi di wax lu ne mhm. waaye dafa jóg dafa jóg wax mhm. dafa jóg wax bi mu waxee itam ñu ne ma ah yow day Sénégal boobu ñibbisee gu ma sax mhm. euh, coon day def na article boo xam ne bi wax dëgg yàlla ñun suñu yaram dafa daw may leen ah loolu de du ma bett si moom mhm. ndax séq nañ ko séq boo xam ne gi mhm. euh, def nañ lu ne euh, euh, maag moom si loo xam ne lii ba ñuy xamante yàgg na parce que xamante bu yàgg te lu ñaaw mosu sa am mhm. loolu je crois que c'est extrêmement important nit ñi nag ku si nekk daa am foo féete rek waaye bu ñu xamoon li nekk si biir amaana xëy na du ñu am boobu boobu xalaat parce que respect am na ca. Mhm. mbëggeel itam am na ca. jàppante itam. Mhm. am na ca ak li nga xam ne li xëy na mooy jëmale ñun si li ñu nekk kanam. Mhm. ku nekk yéene sa morom jàmm. ku nekk bu sa moroom amee loo xam ne lii teraanga la da jël sa téléphone nga woo ko. nga félicité ko nga ànd ceeg moom parce que dafa mel ni yow la. parce que ñoo bokk lu ñuy défendre. te ñun ñëpp. dafa am loo xam ne lii moom la ñu gën a gëm mooy génn ñu dañuy toog suñu réew. ñu dañu toog mm-hmm. demuñu fen fii la ñu toog bu ñu demee dañuy dañuy tukki bu ñu génnee Sénégal la ñuy yóbbu parce que tey boo nee euh, Thione Seck da nga naan Thione Seck du Sénégal. bi mm. si ëpp olof la ñuy ak làkk bi nga xam ne bu dee Baaba Maal dina way ci couleur mais. ñun suñu identité moom la ñuy défendre parce que dañu gëm li ñu doon. Hmm. loolu mooy problème parce que loolu lañu ñu bëgg génne pour wane ne ñun tamit mën nañuy ñeneen yi li ñuy def ñun mën nañ ko def c'est ça le problème donc loolu dem nañu ba defar ko ba nga xam ne bi effectivement am na fu ñu ko yóbbu foo xam ne fii respect donc lañ ci gis ak considération hmm. moo tax bu kenn si ñun wàññee ko day day day yóbbaale lu bari hmm. day yóbbaale lu baree bare ñun ñëpp triste fi mu nekk nii parce que koo si dem woo ko mën na la wax si moroomam loo xam ne li xëy na mhm. nit ñi dañ naan xëy na li mu demee nii moo tax te pourtant dëgg la wéetal na leen wéetal nañu wéetal nañu trop parce que maa ngi fàttaliku coon bi mu nekkee Kilimanjaro daf ma woo benn bés mu ne ma ma peni sa caam noonu la may woowee tout temps mhm. góoru Bana Ndiaye voilà dama bëgg nga ñëw ñu bokk ñu bokk semaine nga jël ay jours ma jël euh, ma jël yeneen jours yi comme ça au moins affaire bi mu ñu mën ko diversifier pour te diir matériel baa ngi fii lépp a ngi fii donc mën nañ ko bokk xam nga bu fekkente ne ku si nekk da ngay ñaane sa morom wala nga yéene sa morom lu ñaaw xam nga loolu doo ko sax xalaat ba koy def. Mm. moom yàgg naa woote. booloo seen biir. Mhm. Euh, sur le euh, diapason émission RTS 1994. comme on le voit sur ces images mhm. yi ak moom ak Daara Mbaye ci kaw seen bi. Mhm. mu ngi wax nañu booloo. nañu booloo ñëpp booloo nañ ba mu des ñun nañu booloo. mais effectivement parce que loolu moom moo taxoon sax après bu ñu fa déggee ñu créé euh, association bu ñuy wax benn loxo. oui autour de Moïse Ambroise Gomis. ñu créé ko. du dëgg tey boo demee ba tey ku woy naan amal pen góor. yéen ñëpp a ngi woon ci plateau bi ngeen. tegaloo loxo ne benn c'est ça le ah, hmm? ne benn te loolu dañ ko jëf te muy muy dëgg mhm. parce que seq nañu loo xam ne lii tey ku si soxla sa morom mais da nga jël sa téléphone woo ko mhm. da jël sa téléphone woo bu amee événement bu am mais da ngay gis message yi day day day day day daw c'est ça le man bi ngeen bi TFM amee problème bi nii si bés yi ñu weesu man woowuma si télé bi woowuma si rajo bi sama message laa bind Youssou directement xam nga mais bi mu ko liiree daf ma répond lam ma ca wax moom xam na li ma ko wax man xam naa li ma wax mais ñu ñu ñu continuer dem mm-hmm. donc seq nañ ko mm-hmm. loolu dafa nekk loo xam ni koo si woo mu ñëw barki démb laa def benn émission télé pour 31 décembre Baaba Maal bert ma fa Ismaïla loo pare mm-hmm. Mm-hmm. donc mu nekk loo xam ne li te ku siy waxal sa moroom da ngay wax li nga xam ne li moom gu dundur amul dara luñ fi fomante dañuy wax rek dëgg mm-hmm. voilà donc il faut que loolu mu leer si bopp ñu ñi donc tey coon mi wàññeeku wàññi nañu wàññi nañu wàññi wàññi na lu bare bare bare bare si man damay toog ay nit ñu bari di ma envoyé ay message di ma jàllee mm-hmm. sa waa ji seen xarit bi génn àddina mm-hmm. yàlla na ko yàlla yërëm te yéex fan si ba tey ba fii may wax yow dañuy jot ay ay message yoo xam ne nit ñi parce xam nañu suñu diggantee lan moo ci ne mm-hmm. je crois que loolu dafa am importance ba nga xam ne loolu rek mën na mën nañ ko joxe exemple si réew moo xam ne mii comme réew mel ni Sénégal que dañu war booloo. Hmm. nekk benn benn c'est crois que loolu aussi ku nekk respecté sa morom sa hmm. lamone. c'est important yéene ko jàmm itam. Uh-huh. je crois que loolu moom moo am importance noonu la am réew di doxe am na solo. tellement bien que. Uh-huh. Euh, morceau bi ñuy joué nii. ça uh-huh. s'appelle ku baax la. ku baax la. le super jamono. ak di la bëgg. mu ngi noonu ñu enchaîné. Ah. ku baax la ak. ak di la bëgg invité d'honneur sur TFM jaajëf. yomba na lool di jàngi dem romb la ak say morom li ngeen di wut jëme ko si moom te dara du ndax kenn si yéen xamu ko baax boor ko mën a wax ne ku baax la ku yiw la fam leer na ne ku gore la yomba na lool ñi tëggi dem romb la jëme ko si moom te dara du ci dëgg ndax kenn si yéen xamu ko xam ku baax door ko mën wax ne ku baax te yiw la ay yëfam leer ne ku gore la la ma sa neex si sa gaañ fa nekk charle seen ba su ma ko déggee man dama leen jëlee déggoo ga liggéey ga yéene ga yéene ga ca nekk fan ba ñoom Cerno rajo ba kër Samba fii deme la ma sa si sa gaañ fa nekk seen ba su ko déggee man dama leen jege déggoo gaak yaru liggéey gaak yéene ka ca fan sa club ñoom Cerno rajo ba kër Samba ainsi soo ma ma jéem a ba yegg fa jël ko xëcc ko jox soo ko soxla wax ma ma jéem a yegg ba yegg fa jël ko xëcc ko jox la ñun ñaar rek la maag yow dong dong la ñun ñaar rek la maag yow dong la yow laa bëgg yow miin yow sama yaram la yow laa bëgg yow miin yow la sama yaram la yow bëgg yow miin yow sama yaram la di la bëgge di la bëgge di la cukkutaan ba ngay xaxataan ma ma di la bëgge di la bëgge di la yàq lool mel ni sama doom ma di la bége di la bége di la mel ni ma di la bége mën naa jënd sax doomu tubaab ngay foo di la bëgg super jamono keps euh, foog naa léegi ñu jeexal léegi ñu jeexal li ci des bëriwul mais Babacar di la bëgg en fait euh, moom musique am yi dafa traversé génération yu bëri mhm. musique Omar Pène ak super jamono euh, bu ñu ñëwaatee ci répertoire am dafa am benn titre boo xam ne sur le plan sociale moom daf ci woy lu bari ba tax na ñu bëri di identifié wu ci moom mhm. mais am na benn woy boo xam ne marqué na ma man te marqué na génération yu bëri ndax mi ngi naan ci sama wujju yaay Mm. moom la ciy way te defe naa c'est un vécu. Mm. est-ce que mun nañu ci ñëwal. waaw lu mel noonu xam nga nit ki su fekkente dafa am euh, loo dund. Mm-hmm. te mu wóor na ne am na ñu bari ñu dund loolu. Mm-hmm. parce que dëgg la. continuer di ko dund sax ñu bari ñu bari ñu bari ñu dund loolu nga nga bokk nga part nga partagé maanaam parce que ñun aussi. su mm-hmm. suñu métier. dafa nekk ne xëy na ñu ngi woy dëgg la mais dañuy sensibiliser. itam dañuy indi sunu li nga xam ne lii moom mooy defar mooy defar loo xam ne lii dafa dëng nga jëm ko proposer ñu jubanti ko loo xam ne lii dafa naqari nga nga wax ko loo xam ne lii aussi dafa neex nga dëggal ko hmm. je crois que ça aussi c'est extrêmement important hmm. parce que ñun aussi ay ay leader d'opinion lañu hmm. donc musique bi ñuy def pourquoi parce que c'est un vecteur boo xam ne bi de communication aussi je crois que c'est extrêmement important parce que boo amee mbooloo boo xam ne bii dañ lay dañ lay déglu oh, yow yàlla may la boobu nga am ñoo xam ne ñi xëy na boo waxee ñu ñu déglu la wax leen loo xam ne lii mën nañ ko dégg loolu itam lu am solo loo xam ne itam jaaduwul nga am possibilité wax ko itam wax ko pour du fekkente loolu mën na indi saafara mhm. nga dafa doon nit ñi dafa am ñu ko doon def mhm. xëy na bu ñu euh, bu ñu ko déggee mën na leen soppi mën nañ ne ah kii day wax dëgg yàlla li wax dëgg la te yedd na ma donc xaaral boog ma jéem a ma jéem a jubanti boog parce que lii vraiment euh, rafetul. xaaral ma jéem a rafetal boo au moins. indi nga loo xam ne lii baax na parce que jubanti ko bu doon doonte bu doon benn nit sax. baax na man bi ma wooyee euh, morceau bu ñuy wax agresseur. Mhm. Euh, am na am na lu mu def si nit. Mhm. moom da doon yore ay jaaseem ak ay yooyu mais benn bés dafa mortu bi dafa génn mu toog déglu ko jooy bay bëgg a dee jël mm-hmm. jaase yi teg ni tuub naa bis ni ki tey mm. donte bu doon benn nit bu def loolu sax woy bi am na njëriñ dëgg la mm. je crois que c'est extrêmement important nga euh, bokk si liy defar mm-hmm. waaw bokk si liy defar boo gisee lu nar a dëgg wala lu nar a yàqu nga wax sax mm-hmm. amaana xëy na peut-être mën nga indi sa sa sa mën nga si contribuer ba nga xam ne bi dana jéem soppi dina jéem a soppi li nga xam ne lii moom moo naroon dëng wala lu nar a ñaaw mm-hmm. nga nga bokk si ñi nga xam ne ñi ñoo koy defar mm-hmm. je crois que rôle boobu itam euh, am nañ ko te je pense que gaa ngi ciy dox bu baax a baax a baax mm-hmm. ñu koy wax bu baax baax a que loolu itam am na di nga wax si lu mel noonu parce que man dund naa ko dëgg la yàlla suturaal na ma ba ma ba ma génn si mais euh, li ma gën a defar mën naa wax loolu si la bokk mhm. ndax man maa décidé mhm. ne damay dem mhm. parce que boo demul woon amaana xëy na mën nga noo ko dund leneen wala mu soppi la si neneen loo xam ne xëy na si drame lay mujj man ma jël sama responsabilité malgré que xale bu tuuti laa ma génn dem à quel âge treize ans ma génn dem pourquoi ma génn dem parce que euh, su ma demul woon amaana mën na cultiver haine ba mu jur musiba. boo mhm. xam ne kii ñëpp a koy rëccu. Mhm. man sa wàllu bopp malgré que xale bu tuuti laa woon. Mhm. ma ne jaru ko pour ma sauver situation bi bàyyi ma dem. looloo tax ma dem. te rëccoo ma ko tey. alxames bee weesu gis nañ. Euh, nga dem université Cheikh Anta Diop. doon fa dox tànki jàmm. gannaaw justement Euh, li xewoon ci réew mi xiiroo gi amoon diggante ñaari association étudiant mhm. euh, nga dem fa ci ci sutura ci lu kenn ah. yëgul média sax eh, yëguñ ko lu tax nga doxalee ko noonu waa ah xam nga li ñaan booy yor doo doo doo sëxat en tant qu'ambassadeur euh, en tant ah, qu'ambassadeur itinérant mhm. je crois que tey rek laa doon dajee ak ak ak étudiants yi ñu waxtaan mhm. waxtaan si loo xam ne nii day jur jàmm ndax si jàmm rek la ñuy dox ñoom jàmm lañu ñu bëgg. Hmm. parce que wax nañ ko donc si loolu lañuy ñuy dox. donc euh, xam nañ ne ñoom fi ñu nekk dañ fa jaar dafa am lu ñuy wut. Hmm. moo loolu moo leen fa yóbbu. léegi mooy li ma leen di wax rek li ngeen di wut bu ngeen ko amee da ngeen di dem ñeneen ñëw. Hmm. donc defar leen ko ba nga xam ne bii ku ku ku ñëw rek mën see jariñ parce que je crois que loolu moo si yëpp solo et fi ngeen nekk nii. dafa am ku kuñ ko tuddee muy Cheikh Anta donc bu dul dara sax nañu rustur bi ndax kàngam la boo xam ne bi jàmbaar la joo xam ne ji waxuma Sénégal waaye liñ ko respecté si bitim réew mhm. bu ngeen ko xamoon wax dëgg yàlla kenn du fi sànni xeer je crois que loolu itam lu am solo la dégg nañu message bi ñoom itam waxtaan nañ ci bu baax a baax te ñu ngi si dinañ continuer di di si waxtaan léegi nag bés bu ñu tolloo foo xam ne fi xëy na war nañ lu fa jàpp ci ci mhm. lu ngeen fa jàpp ci seen i tànk yi fa doxi woon ak la ngeen waxtaan a ah, li ñu waxtaan mooy li fi xew déjà mhm. loolu ñu ñu ñu ngi siy dox ñu siy waxtaan mhm. et ñoom si seen wàllu bopp li ñu ma xamal mooy ñoom jàmm rek lañ bëgg et que ñoom bëgguñu sax ñu jël affaire bi di ko yóbbu fi nga xam ne fii foofu lañ ko commencé léegi du du question ethnique loolu ñoom bañ nañu loolu. parce que loolu buñ ko fa bëgguñu sax ñu yóbbu ko fa. parce que xam nañ ne euh, am na dëkk yu bari yoo xam ne foofu la business bi commencé te gis nañu la la fa xam. donc loolu moom yàlla bu mu ñu dal. amiin amiin te bëgguñu itam mu jógee foofu. donc loolu je crois que ñoom ils sont conscients de ça. et que am nañu yaakaar daal parce que wax ju rafet lañ laa fa jële yoo xam ne ji wax dëgg yàlla may na ma. gën na ma yokk doole pour éventuellement ñu gën a mën a continuer waxtaan bi ba am une solution boo xam ne bi bu soobee yàlla. Mhm. dina baax pour réew mi parce que loolu lañ soxla. rafet na jërëjëf Omar Pène euh, étudiant la ñu mujj joué mhm. euh, ma bàyyi laa keps ñu tëj waxtaan bi nga xam ni rafetlu nañ ko ndax euh, occasion la woon pour TFM mhm. mu delloo la njukkal ndax sa màggaay sa taxawaay sa mandute sa baax sa bëgg jàmm ci Sénégal. dëgg la moom li koy symboliser moo di rek discrétion efficacité mu nekk koo xam ne Sénégal ñëpp ko nawloo euh, ci amul xaar ma yàlla ak kenn euh, ku yaru mag bu yaru boo xamante ne bii. Euh, mi ngi mené de main de maître boobu ba léegi liñ naan les hommes partent les institutions demeurent te super jamono defe naa ne institution la ñi fi jaar bëri na. Mhm. kon ñi ngi lay euh, delloo njukkal bu baax di la sargal di ñaan yàlla mu yàggal sa taxawaay di kontaan ci sa teewaay di la bàyyi rek nga tëjee ñi nga xam ne say xarit lañu te yàgg na euh, démb tey soog a ñëw te loo leen wax ñu déglu ko macha allah merci beaucoup à toi grand. ci biir invité d'honneur merci à vous aussi maa leen di mhm. remercier encore une fois si invitation bi. Mhm. di leen wax ne leen wax dëgg yàlla liggéey bi rafet na la preuve moom euh, TFM mu duma sax wax di TFM Sénégal TFM àddina la ndax fu nit mën a nekk euh, yaa ngi ci yaa ngi koy seetaan itam yàlla na sax te yàgg je loolu itam lu am solo la mm-hmm. lu am solo la yéen ngi participer si luy ubbi réew mi je crois que loolu aussi c' est extrêmement important en tout cas daal wax dëgg yàlla duma ma def lu dul encore di leen remercier encore une fois. Mm-hmm. et puis di ñaan rek. Mm-hmm. Euh, yàlla yàlla jàmm sax. amin amin amin jërëjëf jërëjëf Omar Pène jërëjëf Kebs jërëjëf mbokk yi mu nekkoon invité d'honneur mm-hmm. Omar Pène et le super jamono ñu tëjee étudiant ba beneen incha allah bàkkoo ku teg bëccëg yéen a nga jël suba. Gitu suba. Siena. Tiga